mbokk yi am na ci yaatal vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu di koy ci la gën a fees ñu daal di koy door ginnaaw dogalu Macky Sall nag ni ki dëkk bi tàng jër la tey ci assemblée nationale nag ni ki noonee rek lañ ko daal di defee ginnaaw nag bi nga xamante ne bi projet de loi boobee ña nga ca nag sëgg ca kii di Guy Marius Sagna nag dafa daal di dikk nag ci kaw daal di indi ay doom yu wax xat teg ko ci kaw ki nga xamante ne moo di Macky Sall ak aw ñooñam di wax ne nag ñoom ñi nga xamante ne bii nag ñoo féete ca wàllu googale ñoom nag seeni wax jot jàpp te di ay waxkat yi ay nit ñu dul wax dëgg lan maanaam daal ca nam ko misaale ñoo xamante ne bii loolu la wax rek bul jàpp loolee daal la indi ni ki ay kàddoom moom gi mairie Sagna waaye nag ni ki assemblée tey jii it dara yomb fa ndax lépp loo xamante ne bii nag ña nga fa bëgg a voté opposition bi nag ña nga taxaw opposé wu bam saf sàpp ak ñi nga xamante ne bii ñoo féete ak Macky Sall loolee nag ñoom ñi nga xamante ne bii ñoom mooy ñooy waa Benno Bokk Yaakaar dañoo jàpp ne nag ñoom ñii ci waa opposition bi ci ay njoñ njaaj képp ak ay tappale ci la lañu nekk waaye opposition bi jàpp ne Macky sàll mii ci ay tappale képp ci la nekk moom ak aw ñoñam ndax li nga xamante ne bii jàpp na ne mooy candidat bii mu tabboon di Amadou Ba ginnaaw bi mu ko arrangé wul ba tax mu bëgg a dàq nag élection yi loolee nag lépp buñ ko tënkee ci ay tappale ak ci lay lëlu loolee ñoom ñoo ko daal di xamle ginnaaw bi xamante ne bii nag ña nga foofale ci assemblée nationale ba ni ki tey jile ni ki tey it gisagun fenn foo xamante ne bii ci biir réew mi comme yëngu-yëngal ni ki démb am na fa waaye teewul benn yoon nag ñi nga xamante ne ñooy opposition bi moom daal ne dinañ battre campagne wër dëkk bi yëpp ngir mën a dem élection février 2024 yi le